salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy bàyyi xel ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaarawaat bu baax a baax a baax di ñëw ci lenn lu ama am solo loo xam ni mën naa jariñ askan wi muy njiitum réew moo xam ni dem na ba askan wi doylootuñ ko ci xelam wóolootuñ ko ci seen xel seen xalaat ak seen dara. ñu bëgg koo soppi bëgg a wut meneen njiitum réew te itam suñu borom dénku leen doole ci man-man dénku leen doole ci xam-xam juñ ko mën a follee fal keneen dangay fexe ba bind baatub xam tariran paddaro lay doon boo ko bindee cim neen nga koy bind bind turu njiitu réew ma bind itam turu ndeyam bind itam turu baayam nga bàyyi ba waxtu jant sooye nga jël nen ba daal koy toj boo ko tojee fa ngay toje neen ba na doon waxtu woo xam ni am nga yaakaar ci ni bu ñëpp nelawut itam ñi ëpp nelaw nañ nga toj nen ba mbooleem nit ñi buñ bàyyee xel ci lii ma wax def ko njiitum réew mu mën a doon buñ ko defee sun borom mën na koo folli nit ñi nag dañoo baaxoo di wax na fa'aalun limaa yurid dëgg la aji def ji yàlla waaye itam masalan dëkk bii ma ne boo fi jóge woon jëm ci beneen dëkk ka lay yóbbu yàlla waaye sabab ba lay yóbbu mooy oto ba nga yéeg ba sareet ba nga yéeg tax alquran waxoon ni wa aataynaahu min kulli shay'in sababan fatbaa sababan sun boroom wax ni man maa indi sabab yi topp leen sabab yi sabab bii mbooleem nit ku ko bàyyi xel te def ko njiitum réew moom moom maneen la ñuy wax waaye dootuñu ko tuddaat bu dee itam ndax bu dee itam nit ñi dem nañu dem nañoo dem a dem ba am keneen koo xam ni bëgg nañ koo jox seenum réew lii day maase ñu dëppoo ci ndax ña yor réew ma ak ñi fi nekk ñépp ay doomi aadama lañ te ñëpp itam yàlla moo leen jaboote te ñépp itam tolluñ nenn fa yàlla te yàlla ku ko ñaan mu wuyu la te ak noo ko mën a ñaane dana la wuyu te itam njiitu réew yeeg ñi dul njiitu réew kilifa yeeg ñi dul ñi jëppewut seen bopp kilifa ak ñëpp rek ay mbindeefam la allahu rabbul alamin mooy buurub alamin am na koy firee mbindeef yi waaye alamin mooy buurub monde bi lépp rek mooy kii borom ndax moo amal njiitu réew yooyu moo amal ña topp njiitu réew yi ñëpp yàllaay ki leen amal kon lii mbooleem koo xam ni def na ko rek bu ci ñépp maase woo di ko def suñ borom dana dogal njiitum réew moomu suñ borom mën na koo génn ca jotaay boobu mu toog mbooleem koo xam ni itam dem na ba am yaakaar ci kenn koo xam ni buñ ko joxee seenum réew seenum réew mën naa dem ba yegg foo xam ni ñoom dana kawe seen jortu ci seen gis-gis ndax nit ki yaakaar rek la am ndax arrajaa u jiñ am ci sun mbooleem mbindeef yi moom lañ am ci sun njiitu réew yi ndax ki ngay fal yaakaar rek nga am ca moom waaye yaakaar ja am ca moom ba tax nga koy fal bu dee bëgg nga koo fal itam dangay bind baatu ba hasin ñàkk ni sax xëy na danañ leen gën a leeral baat bi danga koy bind juróom-ñaar fukki yoon jox ko ka nga bëgg mu falu ca réew mooma insha allahu taala subhanahu wa taala mën naa dogal mu daal di falu li ma waxoon sànq rek bu sa bopp tuutee tuuti ba nga ni njiitum réew njiitum réew doomu aadama la ni nga doone doomu aadama yàllaa ko sàkk nim la sàkke te itam dalika fadlullahi yutihi man yasaau kenn gënul kenn ñëpp ay doomi aadama lañ illa illa man atallah bi qalbin salimin ci la nit ñi rawante muy xol bu mucc bu saxal tawxid ndax tawxid wa afdalul ulumi lil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi li cheikhul xadim waxoon ni mboolem li nit ki sàkku rek sàkku wéetal yàlla mooy li cëpp solo sàkku wéetal yàlla mooy li cëpp njariñ adduna ak alaaxira te itam mboolem borom xam-xam yi xam yépp dëppoo nañ ci lii itam njariñ la loo xam ni mboolem mbindeef yi rek ñu ngi leen koy jariñ ndax mbindeef yi bëri na ci ñoo xam ni toujours naqaru xol lañuy am te duñ am man-man duñ am am-am duñ am man-man buñ mën a faje seen naqar ci seen jiito yow waaye saafara su gaaw si mi ngi noonu wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bi alihi wa sahbihi wa xadimihi amin